salaamaaleykum man la docteur Assane Ndiaye maire de Lambaye bon damay ñëw pour massawu sama mbokk Lambaye yi nga xam ne peut-être euh, maa leen jiite nekk maire dëkk ba euh, ñu am naqar parce que ku ne gis na li fi xew tey fii yëpp lakk na ba jeex te fii lañ doon euh, daane seen doole donc comme maa leen jiite li gën a rafet mooy bi ma ko déggee dama doon dem aéroport euh, ñu wax ma ko ma dëppaat parce que foofa tamit ah euh, suñu benn mbokk moo fa ma wàññeeku Amérique si corps bi doon ñëw euh, ma ca doon dem ñu wax ma loolu ma dëppaat ñëw mais comme booba kii bi metti woon na torop lakk bi ma jot a gis ñenn mais bi ma demee dëppaat dem aéroport euh, ba loolu ñu doon kii corps bi ñëw euh, ñu yóbbu ko dëkk ba euh, ci la depate pour ñëw parce que sama xel dalu lan daal parce que vraiment ku gis li xew fii tey xam ne metti na trop pour ce qui est des estimation moom c'est trop tôt pour wax vraiment ay estimation ak yooyu parce que defe naa kenn tal ko mais ku ne xam na ne tey Euh, boo waxut ay milliards di nga wax ay millions yu bari yoo xam ne parce que euh, matériel bi bari na te koñ ba koñ dugg ci biir loolu vraiment lu metti la mais nag euh, mbiru yàlla la ah nañ ko nungoo noonu mais te xoolaat la ca kanam xool nu ñuy jógaate pour ëllëgati si biir lii ah euh, bañ a am daal. wax na ne la moo waral lakk bi. non euh, parce que man euh, comme ni ma ko waxee rek maa ngi soog di ñëw. bi ma ñëwee jotuma kii parce que dama doon dem aéroport suñu benn doomu doom boo xam ne dafa nekkoon Amérique yàlla moome ko fa. ñu ma cay dem fii bi ma tolloo Colobane lañ ma wax ne ma Pàkku Làmbaay salle de vente mu ngi lakk ci laa ñëw. dëpp bi ma ëgsee ah, ah am na ñu ma jot a mais vraiment jotuñoo wax euh, déterminer cause yi lan moo fa indi lakk yooyu euh, parce que vraiment bu ma yeboo ne taluñu ko woon parce que ànduñu woon ak seen sagoog yooyu mais man li ma waroon en tant que maire de Lambaye ah jiite ñëpp bu amee tiis bu dal ci suñu njaboot dañoo war a ñëw euh, ànd ak ñoom naqar wi loolu mais vraiment jotuñoo am euh, euh, temps wu laajte ba xam lan mooy kii ak yooyu mais loolu enquête yeeg yooyu dina ko ña ko euh, ña ko yeyoo dinañ ko xool ba xam lan ak lan moo waral lakk bi. après bu fekkee dañ koy defaraat. ni mu meloon dañ koy bàyyi wala dañ koy changer. waaw loolu moom du man maa koy wax parce que am na ay. Euh, kër yoo xam ne wala ñoo xam ne seen xam-xam màcc na ci loolu muy ay urbanisme wala ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne loolu tey buñ deman ba koy defaraat xëñ na pour kii mais ñun li ñu gënaloon mooy tey ñu defar ko ba maanaam tey bu euh, lu mel nii ñaanuñu ko yàlla amee ah euh, sapeur pompier dinañ mën a ñëw dugg ci biir mais nii mu meleen aussi jafe na metti na pour nit mën fee dugg